ngeen di gën a xaar ci gouvernement bi nga xam ne moom la ñu teg actuellement lan. bu ñu koy bu ñu koy tënk lan ngeen ci gën a xaar ci ñoom. li ñuy gën a xaar ci gouvernement bi mooy mu jublu ci li nga xamante ni mooy yombal euh, askan wi seen dund. loolu nag mooy dañ koy wax rek toujours mooy secteur primaire bi secteur primaire bi nga xamante ni mooy pêche agriculture ak élevage lépp lu ñuy def. ñu jim ko def foofu parce que loolu mooy tax mooy permettre li nga xamante ni ñu mën a am autosuffisance ci li nga xamante ni mooy autosuffisance alimentaire mooy tax euh, importation bi nga xamante ni nit ñi ñu ngi koy def tamit ba tax na li nga xamante ni mooy balance commerciale bu Sénégal gis dafa dafa déficitaire dina participer ci li nga xamante ni moo koy moo koy équilibré beneen bi ci des dina tax Sénégal le fait que fi nii boo bu ñu waxee recettes yi nga xamante ni ñu ngi koy am ci ñaar yi rek lañ ko lañ ko lañ ko lañ ko mooy ci fiscalité bi ak port bi mm-hmm. donc yooyu nag dafa tax dund gi dafa gën a gën a cher donc bu ñu euh, gouvernement bi nañu wàññi taxe bu ñu góor góorgóorloo bu baax a baax a baax fexe ba nga xamante ni ci domaine yépp euh, surtout secteur primaire bi ñu góorgóorlu ci bu baax a baax a baax ba ñu am autosuffisance ci domaine boobu ci ci côté boobu bu boobaa industrialisation bi dina yomb bu boobaa dinañ fexe ba nga xamante ni dootuñu soxlaati di jéggaani dara bitim réew lépp luñ bëgg dinañ ko amal suñu bopp mhm. fii ci réew mi peut-être dernière question hmm? Euh, bon j'en débattais avec jox tout à l'heure euh, si euh, comment dire politique économique bu nga xamante ne wala gouvernement bi di mu ne boo gis nañu dem nañu FMI ak banque mondiale bon pour ay ay fonds alors que ñoom souverainisme la ñuy woote ak nationalisme da nga jàpp ne loolu dafa contradictoire wala. bon xam nga. en loolu ah, tamit dafay doon loo xamante ni mënoo ñëw FMI ak banque mondiale ñoom mënuñu ñëw rek. benn <laughs> marqué benn rupture ak ak ak ak ñoom donte bëgg nañ ko seen politique bi ñuy fi du léegi lañ ko mën a mën a mën a mën a mën a mën a mën a def il faut du temps pour xool ñoom naka la ñuy def par exemple liggéey ci Sénégal ba nga xamante ni dinañ mën a wax ne ah FMI kat yéen soxlaatuñ seen seen seen dara boo xoolee fi nga xamante ni doon Sénégal doon nañ fa xaal benn recette boo xamante ni bu am importance la bu ñuy permettre ñu xaw a souffler tuuti mooy mais pétrole bi ak gaz bi te mm-hmm. gis nañ ba léegi démarré gul te mm-hmm. jàpp naa ne foofu bu démarré bu gestion bi bu fekkee euh, jaar na yoon jàpp naa ne yu bëri dootuñu ko soxlaat nañ mel ne comme yenn pays yi mel ne Qatar ak Kuwait ak yenn nga xamante ni am nañ pétrole te gis naa te gis nañ seen pétrole jëriñ